maa leen di nuyu di leen ziar euh, di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may mu ñëw ci jàmm fekk ñu ci jàmm bàyyi ñu ci jàmm te kañ bana manqué it ci barke Seydina Mohamed ak gàmm gi ñu jub si ak màggal bi ñu génn mooy bisi Serigne Touba xam nga Omar lan laay bañ ba leen di def alt ma leen di avertir dama xam ne li tukulóor di wax ren dube peccan lu nit ñu bokk dañ koy séddoo président bu fi ñëwee ngir yàlla nañu fexe ji ko war a gis gis ko ñi nga xam ne amal nañ ko njariñ mun nañ ko jàppale ci ay nit mun nañ ko yokkal électorat am suñ toogee fii dañu xool ñu leen neex ñu dem ñu gisee ñoom audience su paree li fi li fi am rek boo fi abaat ndax day fekk ñiy kontaanuñu ñiy kontaan loolu nañ ko moytu bu baax a baax ndax xam nañ fi audience bi ñu dem Dakar audience bi du audience boo xam ne ñun ñi seen xol sedd nañ mujj dañ leen a artu te am na ñoo xam ne vraiment bu fi ñëwee buñ ko yàkkamti bu fi def ñaari fan sax mun na fexe ba ñu bëri gis ko te am na ñi nga xam ne bul ko bu leen bugg nañoo gisee ak président mais ñi fi nekk amuñu accès pour eggante ak ñoom te ay kilifa lañ te ñoo ngi jàppale ay nit ci dëkk bi te man xam naa leen mais damay bañ mu ñëw fi rek mu bàyyi fi coow boo xam ne du arranger président du arranger ñiy voté su élection yi passé it li fi am doo nga fi doon amaat. day pare rek ñun leen résultat yi fi am baaxul mais bu ñu waxtaanee déggoo jubal yërëm di ji yërmande duggal yërmande def def lépp def lépp ci dëgg kenn du mer boobaa ñu war a gis président yi daañu gis moom bu yàlla defee bu président ñëwee wax ak nit ñi mu war a waxal yàlla may ko ñu am résultat yi ñu war a am yàlla ñu yàlla may ñu fekk ko te tal ko loolu dama leen ko njëkk avertir li ma ciy jiital nag mooy ñi nga xam ne ñoo nekk fële ca bennoo ba ñu naan ñoo ñooy mag ñi loolu noo ko war a dox liggéey ci lu am solo man dama lay wax ku mel ni ñoom Amath Camara jooju kii gis nga man fii bi président di ñëw fii bi yoon man kenn woowu ma maa dem xam ne bugg naa jàppale président rek ma dem comme man demaa bëgg président am jàmm du ma xaar ku ma woo damay dem ba ma eggee ma fekk ay badge la damay egg rek Amath Camara yëkkati badge jox ma ma dugg waaw dégg nga mu loolu moom fa yóbbu mais mais problème bi mooy daal euh, nañu gën a xoolaat ñëw bi ñu organiser ko amna ay ñoo xamne ne ñoo ngi ci dëkk bi war nañu mëna gisi ak président ak ñi nga xamne ne dañoo war a ñëw pour jappalé président té ñu tej buntu yi nañu bay ñoo ñu yexi xam nga bari na ci so xolé tay Abdou Ba bi nekk euh, euh, service deux transport boy bob PDS la té dafa amoon dara yoron fa lu bari mais gis nga ba léegi dafa teud kenn sétu ko amna ñu bëgg ñëw ñu bari Omar barké yalla mais kenn si ndax amuñu accès pour egg ci ñoom mais yooyu dañ ko war a lijjanti gaaw balaa président ñëw ku mel ni ñi nga xam ne dañuy def social fii ci dëkk bi dañ leen a gaaw waaral gaaw a lijjanti ku mel ni Mor Gueye Mor Gueye tey kees gi yow xam nga li ko yàlla defal ci dimbali ay nit lan la ñu xaar ba ñoom jëluñu seen téléphone woo président ne saa waay recevoiral Mor ñu waxtaan bu dee nag na ñu président ji laa la wax. ndax di nga nekk ak nit ko xam ne doo ko yéene jàmm fekk sa intérêt personnel nga koy nga nga nga lijjanti ci moom bu bu daan woon tey da ngay wuti ñeneen beneen mbir mi yi nañ leen toppatoo ñu fexe bu ñëwee ñoom it nañ gisee ak président ñu ànd ak seen njiit mooy Amadou Mbaye Ablaye Sow nañ dem seeti leen ñoom ñëpp man suma ma sañoon man Omar jàmm rek laay def jàmm dong laay dox ay Ablaye saw ñu dem seeti leen waxtaan ak ñoom ñoom aji jaata ah ñoom may mun a seen ah ñu fi nekk ñu dem seeti leen mais ñi nga xam ne nag man xëy na maa ngi déggoo ak ñoom dinaa man di waxtaan ak ñoom ñu dem seeti leen man moom fu sama tànk mën a dugg dina fa dugg pour jàppale président mais ñëw président bi nañ ko organiser Omar buñ ko organiser wul catastrophe bu metti la fi bàyyi barke Seydina Mohamed ñoo ngi fi ñi ñaa ngi fi toog. nañ góorgóorlu ah, taala si la mooy keroog dakaar mais dama ko rafetlu xam nga taala bu ñëwee jàppale président taala dafa yëg ñëpp taala ni ku baax loo nangu taale ku baax mais nañ ko gën a yaatal aussi ndax des na ndax taala waru organiser lu mel nii dakaar di doomu Thiès ah Omar eh, ñii ñoo fay dëgg seen tànk Mamadou Ñing Adja Ndeye Tické Abdoulaye Dieye Maguette Sey ku baax la aussi Maguette Sey nañ ngeen ko bàyyi xel la gis naa yu bari dama ko ci seen ndax man damay dox yu bari dama ko ci seen maa ngi ko njëkk a gis ci abim ñaa falaa ku njëkk a xool mais seetlu naa màgget yu bari da ciy kii ndax dañ ñoo wax problème yi imaam pour kii imaam asbaro laa jóge ci moom léegi moo wax mais dafa parrainé mais màgget sëy la parrainé la jàppale kon nga war a xam ne kilifa diine yi ñuy wax ni dañu ànd ak président di ko jàppale moo suñu ko contre nag man damay wax ah non buñ ko yàqul su ñëwee dinañ gisee ak moom incha allahu rabbi mais nañu fexe mu gisee ak ñoom ndax ñoom ñoo ëpp importance lu ñuy wax ndax koo ci gis am na jabar am na doom am na ay taalibi mais am na ñoo xam ne bu dee ñoom kese la du ñu gisee ak président te su boobaa coow dong lañ fiy baax man su boobaa bu ñu gisee wuñu ak président maa njëkk a taxaw xeex man maa njëkk a taxaw ne banaa barke Seydina Mohamed. alors ci wàllu parrainage ñëw Tanor Dieng kenn waxuñ man kenn waxuma ko amul benn kilifa diine buñ ko wax. mais nag xëy na ñi nekk fee ñoo def erreur bi xëy na dañoo fàtte mais bu ñëwee aussi kenn jéemu ñu jox kàddu mais ñi fa nekk di parrain di ni ngand ngandulu ñun luñ def defuñu ko ñu suñ génnee suñuy parrainage te nga xam ne duñ seen morom ñun lépp luy fal président ci la ñuy dox mais toog ci bureau naan da ngay ay ay ay kii te génn pare génn kenn su carte yi suñu defee ay carte président day ruus day daanu nañ waxante dëgg mais ñun nag dañoo am fulla di génn di parrainé président loolu da am lolu amna na fi de ñun ay dañoo am fulla am fayda et puis mu yi nañ leen bàyyi xel man dama and ak ñom xam nga Omar des fois nga dégg ñu ne Omar day wax ak ni ku nekk lay tuddu il faut ma tuddu mais ko xam do ko jot téléphone xamoko mais lo koy doy tuddu ko seqal nga mëna tuddu man babakar Fall ma ngi seqal mo magal bi ma ngi won kërëm and ak Bourgué sopp dami Abdoulaye Dieye dama koy gis dañuy wax di waxtan di Adja bu ñëw fi sama jigéen la dañuy waxtan damay dem ko. ñu dem gisee Mamadou ñu ngi itakom ka noonu mais koo dul jot téléphone man nga toog di ko gërëm ah Siré Dia dama ko romb ci ay balcon bi ma séenee dafa wàcc ñëw nuyu ma ñu toog waxtaan mais loolu laa gëm boo ko woowee jot ko ah xam nga keroog dajoon daje Omar benn action am fee bu nit ñi tuddee sire ñëpp tëb Siré Siré gars yi wax ma ne bu leen wax njariñ Omar ko am njariñ nit ñi tudd nit ñi gërëm la de sëñ Abdoulaye nag nee na ku la defalul dara bu ko gërëm. maa ngi gërëm aussi bon am na ñoo am ne man dama leen a sonal damay gis ku am problème ma woo ko ma ne demal seeti Ndeye Tické maa demal seeti on Maodo Malick Mbaye ñooñu maa ngi leen di vraiment ndax des fois am na nit ñoo xam ne dañu toll diggante bu ñëwee ci man dama demal seeti Maodo Malick Mbaye dama seeti Mamadou Ngingue dama seeti Ablaye Dieye Ablaye Dieye maa ngi ko ciy baalu ak bu baax ndax ñu moo ngi leen di dimbale te yàlla tax te barke salaatu fatiha su ko waxul man de dinaa ko wax ndax ku defal nit ñu gërëm la docteur Ndiaye nañ ko gën a téye docteur ku baax Omar bu baax la nañ ko bàyyi xel bu muy metti ci terrain bi docteur dong nga fi gis docteur fi njëkk a songu ñëpp di wax foo tourner seen otom foo tourner seen otom mais nañ ko jël Omar xam nga luy dëgg nañu nekk benn xeex bi nañ ko bàyyi Ablaye Samb bee ma wax la dara lu gën a doy waar loolu Ablaye Samb Pape Demba xam nga ko. FPR ah. FPR mais du doomu Thiès Ablaye Samb du doomu Thiès mën nañ ko dindi doomu Thiès dem naa ak moom pale nit ñi di ñu nax danañ la booleeg président ba yàlla def booy Pape Demba Pape Demba ma wax ko ko mu ne ma damay dem Dakar ànd ak moom ñu dem mu yóbbu ko ci Mor Ngom Mor Ngom gis ko gis ay vidéo ne vraiment kii kenn waru koo bàyyi bi ñu toogee Mor Ngom def ay tractation ba mu war a toog ak président ay nit ñoo nekk ay ñi dëkk Thiès ñoo ko yàq. parce que Seydina Mohamed est-ce que Omar loolu baax na te Ablaye Samb ñëpp xam nañ ne Omar kuy social la tabaski bii li mu def ci ay xar bari na mais ñu ku doomu nit di wàcc liggéey doomu dëkk bi ñëw ñu jox la parti bi yéen du ngeen ko mën a téye dugal ko ci wax ak moom mu jàppale leen xeex bi Omar tànka bawuñu ko président du am lu mu bëgg Thiès mais ñoo bi président encore moo war a jël ay responsabilité boppam mu xam ne mooy fal mooy folli man loo loo noonu laa gis moo xam mooy fol boo xoolee tey mouvement yi luñ la jox seen alal lañ la jox man nag sama tànk bi ak sama relation yi yàlla may ma man dinaa seeti ñëpp man président Baye ne Sénégal yëpp laa koy liggéeyal. fu ma gis dañuy wax rek euh, ci cadre nga ñu bëri comme yéen da di jàppale Macky Sall nee nañu dafa sol ay dàll dugg ci biir jumaa bi. ñu euh, bari ñaawlu ko parce que ngay ñu dafa war a doxee doxi mu talibé euh, tey ñeneen ñi tamit di rafetlu ila touba ñeneen ñi di ko ngaañ li ni mel yéen en tant que ay euh, maanaam comme ni ko waxee ay chef religieux di gunge président ci li mu liggéey lan ngeen ci am amar Macky Sall lu dul ñu gërëm ko amar réew mi yëpp ay sànc la a touba ren ku fa jaar boo ñëwee ñaanal ko Macky Sall mooy président boo xam ne moo fi mos a jaar am respect ci kilifa diine jox ñëpp cër soxnaam jox ñëpp cër Sénégal toll na foo xam ne boo jëloon ko gën a baax nga teg ko fi ñaari fan ñu ŋàññi ko bul soxna sa bopp Sénégal moo toll foofu problème bi mooy ñi fi yéegoon bëgg a yéegaat di toroxal di ñi man xam nga lan laa nangu ci kuy politique ku mos sa ne demee ku mos sa yéeg mm, laaj ñu ne kii xëy na nañ ko essayé mais ñi fi jaaroon loo leen di doyee. ku fi jaar nekk ministre jaar nga fi nekk premier ministre jaar nga fi nekk lu ne lan lañ lay doyee ñun soxla wuñ la boo fi ñëwee du looy defar lu dul looy yàq dañ leen a soxla waxuma nag ñëpp a bon mais Macky Sall moom lu dul ñaanal ko nañ ko Macky Sall lu ne traité nañ ko fi lu ne saaga nañ ko fi xas nañ ko fi lu ne wax nañ mais gis mu tontu kenn ak yaram mu am tegginam ak yooyu mais man yooyu du ma ci sori nañu xam ne aussi alxuraan boo ko jàngee ngi ciy bu nguur bu dee dégg nañu aaya ba nguur yàllaa ko may yàllaa may nguur nguur doo jégg nga dégg lenn ki alxuraan lu dul nguur ngay dégg yàlla tudd ko ñi nga xam ne ñoo président aduna bi yépp alxuraan tudd na leen alxuraan yàlla daal tudd na ah, nguur maay xool ku ma neex jox ko kon boo comme yàllaa ko wax bu ñu wekk waxu yàlla lu wér ba wér daal xam naa nit ku baax la waaw nit ku baax la daal. alors mais est-ce que am deuxième mandat. incha allahu rabbi deuxième mandat dina ko am bu soobee yàlla mais problème bi mooy. Euh, man sama problème dëgg mooy cees maanaam da nga bëgg waaw Thiès aussi nañ ci gën a góor mais kees bi nag ñi fi dëkk ñoo yàqal ñi bëgg a jàppale Macky loo mooy problème Thiès de Thiès amul problème problème bi cees ñi fi nekk ñoo yàqal ñi fi dëkk ñi nga xam ne ñoo nekk ca kaw ñoo yàq ni day am njëriñ ñu Omar mënoo jël nit ñi embauché leen ñu liggéey mënoo leen dimbale ci dara mais Mor Gueye day liggéey ci état liggéeyul ci état Mor dafa liggéey ci état. mais de buntu kërëb li fa gis ak ñi muy jappalé ci magalu Touba du gamu gaangi ñew del xol lu muy dimbalé ay nit mais ñu mel ñi nga xam dañu nekk ci deug social ñu leen wo waxtaan ak ñom Omar wala wala Omar nañ waxante deug nañ waxante deug ñi mer ñëpp nañ leen jëli nañ jëli ñëpp nañ jëli ñëpp man man man meruma kenn ngeen baal ma nak Omar xolal kaddu gi may yëkëti ngeen dimbalé ma lillahi wa rasuli du kaddu go xamne xasuma kenn damaa bëgg ñun ñëpp nañu nañu tàppe suñu xol yi ni ko maam Abdou doon waxee ñu nekk benn. xam nga lu ma yàlla defal ñu jàmm may ñu élection yu sedd guy mais kees dimbale leen bu président ñëwee na lépp rafet xamu leen dëkk bi ñoo leen wax ak ñun ñu jàppale leen ñu génneel leen kilifa yi ngeen waxtaan ak ñoom ñu jàppale du kilifa diine yëpp and ak président Idrissa Gaye ma wax la lu mu def bari démb Idrissa Gaye du imam du sëriñ déglu ma baax Omar ASC yi doom dem final mu bañ dara am dafa dem waxtaan ak ñoom. ba pare ASC bu nekk mu yëkkati xaalis bu bari jox la nga préparé sa final Idrissa Gueye def na ko démb ah fii kuy def lu baax moom la ñu gën a ŋàññi waaw ah, nañu bàyyi xase bi daal bàyyi xase bi loolu laa am lu ma ci doon wax bu ma ci kenn mere nag di gërëm ñi jàppale mouvement yeeg gaa yëpp nañ leen gërëm sant leen ñoom ñëpp man loolu laa am li ma ci doon wax di gërëm aussi sama rak sama frère Ousseynou Diouf jërëjëf la aussi ci dëkk bi moo ngi liggéey lu rawet di Serif Dia aussi nañ dem seeti ko dafa accident feebar dañ dem seeti ko te li mu doxi woon it ci accidenté bi mu doxi woon ci affaire président la doon doxi Dakar bu muy ñibbisi di rendre gaayam yi ay kii ñu toog di ko xaar ci la ko ndogal bi dale mais nañ dem seeti ko man ok jërëjëf